benn département 160 millions 80 femmes ont été financées ku ne 500000 250 ñu mel 250 mille fu ngeen nekkoon boobu temps fu ngeen nekkoon fu ngeen nekkoon. femmes yi financé may la man s'il vous plaît femmes yi financé femmes yi financé la première fois c'est la première fois nga dem dans un département ñu classement c'est la première fois. j'ai été dans presque 7 14 dans 14 genre 8 régions du Sénégal fu ma dem dañu ma apprécier département Mbacké ñoo ma xas xam nga ñu xas ma les femmes de la PR nañu joxuma leen financement kan laa ko jox femme PDS yi laaj leen ko le projet d'appui aux femmes le projet d'appui pour les femmes impactées par la Covid-19 ce sont les SEDAF qui piloté SEDAF ñoo ko piloté ñoo ko piloté ñoom seen bopp ak le comité consultatif des femmes je reviens sur le sur, la, sur le renouvellement des instances des femmes le renouvellement des instances des femmes parce que femmes ce sont les partis yi fi nekkoon bu nekk ñoo nekk ñoo nekk ci présidence kon bu ñu porté le projet defe naa ñi ngi ci dugal mooy femmes yi nga xam ne ay femmes parti lañu les femmes de la paix n'ont pas bénéficié wax nañ ko honorable député Fass Sène wax na ko Tivaouane quand femme affaire ñu kaas Touba maa ngi ko parce que ñu ngi souligné waat rek pour rek parce que dafa xaw a guddi no challenge parce que am na ku ma wax léegi ne ma madame la ministre sa passage yu ministère la nga koy marqué sa passage yu ministère j'ai parlé tout à l'heure de la loi criminalisant le viol et la pédophilie c'est une avancée pour les femmes du Sénégal majeure indéniable ku ne xam nga ne avancé boobu am mosuñu ko am ci réew mi te président moo ko def loolu c'est une avancée boo xam dañ koy magnifier du mës a fay ci réew mi loolu laa porté man au niveau challenge bi moom aussi la constitution de ce centre d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences et de basées sur le la construction des unités parce que loolu dafay tax femmes yi jógee fi ñu nekkoon dans les microprojets dem dans les industries j'appelle à la mobilisation générale pour que toutes les femmes se regroupent en coopérative départ région bu nekk ñu defee benn unité de transformation boo xam ne te jigéen ñi mën cee liggéey di transformer mu nekk mu nekk de nouvelle génération ñu jàppale seen commercial utal ay partenaire yoo xam ne ko échangé le partenariat comme am na ku soulevé sànq ñu nekk Dakar échanger ak ñu nekk Thiès ñu nekk Thiès échanger ak ñeneen pour que industrie yooyu les produits chaîne de ko production bi transformation bi commercialisation bi ut leen ay partenaires pour que loolu mën loolu mooy jënd jigéen ñi situation bi ñu nekk te loolu ñu ngi liggéey te loolu sama challenge la bokk aussi